Grand Magal de Touba édition 2023 18 safar 1445 di bés bu murit yépp di waat seen chaîne Univers Info TV fas yéene see ànd ak yéen si ay documentaire ay interview wala bokk ay kuréel xasida si maanaam lépp luy wane liggéey ak jàngale lépp sëriñ bu mag bi yéen ñi nga xamante ni bëgg ngeen a fësal seen ay produit man ngeen ñoo jot au 77 468 54 52 18 safar suñu yitte voilà salaamaaleykum mbokk am internet univers info TV ginnaaw bi ñu leen ci li nga xamante ni moom mooy bésu 18 safar bi nga xamante ni tey la lundi tombeek euh, ñeenti fan ci waaru sàtt mbar ci olof. tey gis ngeen koy fii nga xamante ni fii la ñu nekk présentement di jannatu Mahwa gisoon ngeen préparation yi nga xamante ni ni nga ko leen doon ñu ngi leen ko doon toppal euh, bi nag yi ñëwee bi nag yi ñëwee aussi li nga xamante ni amoon na fi taw bi nga xamante ni moom moo fi mujjoon ni ki aljuma ji nga xamante ni moom la ñu génn présentement tey lundi tey altine tombeeg li nga xamante ni moom mooy euh, màggal 18 safar bi gis ngeen ci suba ba léegi cérémonie officielle bi nga xamante ni comme ndekki bi waroon am fii ci bâche bi amaloon nañu ko lépp rafet kàddu yi jàll tamit comme ngeen ko gisee en mais présentement fii nga xamante ne moom mooy ci jannatu maxwaa dafa am benn taw boo xamante ni dafay wàcc ni ki léegi léegi sànq sax mën nañu environ yaa 20 minutes ou 30 minutes de cela de ce fait am na ay dégâts yu ndaw yoo xamante ni def na ko xam nga gis ngeen nii bâche bi am na parti bu yàqu ba daanu nii sax comme ni ngeen ko gisee mais tamit am na ci benn côté moo xamante nii tamit fees na dell ak ndox gis ngeen ni waañ bi nga xamante ni fii la cantaku ñi doon euh, préparer li nga xamante ni moom moo nekk bernde yi moom it gis ngeen ko instant bi li yàlla xam doy na ba ci euh, écran yi nga xamante ni taxawaloon nañu ko ak moom it li yàlla xam doy na ci li nga xamante ni ngelaw beeg taw bi def na ko mais équipe bu univers def comme ni mu daan def rek donte sax jamono ji tembe ba tey taw bi arrêté wul ndax mi ngi wis ay wis yu dëgër yoo xamante ni mm, mën nañ ko jàppee taw taxul tamit ñu ñu ñu bàyyi parce que lépp rek ci couverture bi la bokk lépp loo xamante ni actualité la lépp loo xamante ni xibaar la lépp loo xamante ni euh, dafa war a ami ci Touba Mbacké fii présentement fii ci Jannatu Mahwa ñun ñëpp ñu ñëw defal leen ko comme ni ñu leen ko daan defalee ci xew-xew bu nekk rek pour taataana leen gis ngeen ni commencé di yokk li nga xamante ni moom mooy taw bi kon xam naa dañuy dont sax mi ngi taw du ñu bàyyi dañuy jéem am fenn fu ñu mën a taxaw rek foo xamante ni dinañu mën a Euh, daw tuuti ci ndox mi mais wan leen li nga xamante ni moom mooy am gis ngeen ni mi ngi taw mi ngi taw gis ngeen nit ñi ñi ngi taw pour wut fi nga xamante ne foofu ñu nekk ah ngi leen di taataanal li moom mooy xew fii ci ah, jannatu Mahwa présentement ndax quelques heures ah, du moins ah, fii ak ay waxtu yoo xamante ni yu néew la rek incha allah si la waroon defee li nga xamante ni Euh, jannatu ndax fii nga xamante ni fii la pénc mi nga fii la Serigne Saliou Thioune war a defee li nga xamante ni moom mooy cant gi sant Serigne Saliou sant Serigne Touba euh, matale li nga xamante ni moom mooy 18 safar mais gis ngeen ñi ñi ngi daw ndax li nga xamante ni moom mooy taw bi asamaan si setul ndax xiin na ba léegi mais teewul gis ngeen nii moom moom fi amagum ñi ñi ñi ngi daw xam nga jaaykat yi tamit sonn nañu ñuy masawo ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci am ay lorange kom lu ci mel ne taataa yi gis ngeen ko keroog ñu ko defalee reportage comme ni ñu ko waxee woon si sunu aljuma ji passé nga xamante ne ñu ngi doon def euh, reconstitution des faits ci ni ma ko mën a waxee ndax bi mu tawee ba pare génnoon nañ su le terrain xool dégâts yi nga xamante ni moom la taw bi indi amoo woon fii nga xamante ni moom mooy ci Touba Mbacké présentement ci Jannatu xa ndax ki nga xamante ni moom mooy météo seen xel ñoom ñi nga xamante ni seen xel dafa ci jëm ci lu wàllum taw yu demee noonu waxoon nañu bien avant que ni ñoom ñi ngi séntu taw lu tombo lu toll ci euh, veyu veyu veyu veyu màggal wala boog jour màggal ni ki démb nag gis ngeen ko dund nañ bés bi ci jàmm alhamdulilahi rabil alamin amul woon benn benn benn benn taw amul woon xiin xiin amul woon wis amul woon dara loo xamante ni nemmeeku woon nañ ko mais présentement tey ji nga xamante ni moom mooy ci bisu 18 safar bi gis ngeen ko yàlla ji nii la mujj dogalee fii ci Touba ak ko wër parce que ñu ngi ñuy xamal ni du rek fii mooy taw fu bëri mi ngi taw mais présentement comme comme on est ici à Touba fii ci jannatu moom lañ leen di taataanal fii nga xamante ni moom moo fi xew fii ci jannatu mais daal ah yéeme na waaw muy muy muy muy muy wanewaat ni suñu borom moom mooy dogal muy wane wanewaat ni suñu borom moom mooy moom mooy moom mooy programme muy wane wanewaat ne suñu borom lépp lu mu nii lii la rek lii la on n'y peut lu dul lan ñëw nangu dogal gi nga xamante ni def na ko lu dul lan ñëw nangu li nga xamante ni moom tey lii la tëral parce que gis ngeen ko ni ki ci suba ñu ngi ñuy xamal suñu concert boobu di Fat Kine Deme nekk fële ca TFM moom it yàlla da ko moom ni ki tey ñu koy ñaanal di jaale suñu concert yi ak suñu confrères yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fële ca TFM yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla jéggal yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na yéggalee li nga xamante ni moom mooy ndawam foofu ca si incha allahu taala mais aussi suñu acteur boobu nga xamante ni gis ngeen ko tey suba moom it yàlla moom ko mu nekk loo xamante ni kenn mënu ci dara lu dul lan ñaanal leen parce que ki nga xamante ne moom moo ñu bind boole bind ñun ñëpp moom moo dogal lu ñu mel kon on n'y peut lu dul lan dolliwaat sant te ñaan yàlla li xamante ni moom moo ci moom moo ne suñu kanam yàlla na dàq ci li nga xamante ni moom la ñu weesu waaw kon ñoom ñaan ñëpp ñu ngi leen di ñaanal incha allah suñu borom yërëm leen jéggal leen te xare leen aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais gis fa ba tey gisoo ñenn ñi ngi génn pour mën a am fenn foo xamante ne mën nañ fa dem comme euh, mën a fa am kerluwaay wala boog mën fa am loo xamante ni bañ a tooy comme niñ koy xamee ñin ñi ñu ngi dugg ci oto yi ñenn ñi di dugg fi nga xamante ni moom mooy seeni i yi mais daal lu ci ñu ci mën a gis daal mooy doy na waar doy na waar loolu waaw. donte sañu ñu wax ni pourquoi ndax yàlla mi nga xamante ne moom mooy programme yàlla mi nga xamante ne moom mooy dogal moom moo dogalee lu ni mel tey fii ci Touba ndax nit ki daaw amoon na sax lu demee nii ndax ci veille bi. Euh, defoon na benn benn benn xiin boo xamante ni àndaloon na ki ngelaw gu métti ba benn parti ci li nga xamante ne moom moo nekkoon parti bâche bi daanu woon ba mais defarawaatoon ko ci vite mais tey dafa ànd ak ngelaw goo xamante ni taw na ko taw bu métti te gaaw boo xamante ni gis ngeen ko en image du yokkuñu ci lenn mais aussi wàññiwuñ ci lenn c'est parce que rek dafa nekk loo xamante ni adduna da koy xaar ndax màggal gi ku ko xam xam ni màggalu Serigne Bamba mais màggalu àdduna la ndax nit duggee na fu nekk ci adduna ñëw pour mën a fekkee ci lii nga xamante ni moom mooy am fii ci Sénégal kon jërëjëfe waat Serigne Touba jërëjëfe waat Serigne Touba yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp ci Univers Info nii lañ leen ko doon defalee ci début bi ba ba ba ba demee incha allah ci li nga xamante moom moo war a nekk. cérémonie officielle bi lépp loo xamante ni rek euh, actualité la lépp loo xamante ni xibaar la te yéen ngeen war ko taataane parce que lii dina permettre ñi nga xamante ni newuñu fii ci réew mi bëgg a xam présentement li nga xamante ni moom mooy xew ci Sénégal ñoom it ñu xam ko uh-huh, si uh-huh. biir day nga xamante ne moo di bagage yi. waaw mi ngi jël ay bagage mais dafa mel ni bagage yu traiteur yi nga xamante ni moom lañ doon defaree petit déjeuner wu tey suba gi. dafa mel ne moom la ñuy yéegal xamuñu nag exactement ba xam hors loolu am na leneen ak leneen loo xamante ni moom la ñuy yéegal ci lu demee wàllum cant gi. Mm. non non mais li nga xamante ni moom la ñu gis mooy li nga xamante ni moom mooy bagage yu traiteur yi euh, bi ñu defaree bernde ndékki boobu ba léegi. waaw il est temps ñu débarrasser li nga xamante ni moom mooy bagage yooyu. bu fekkee dañuy installé waat incha allah dinañ leen ko xamle bu fekkee tamit leneen na ci tukkee encore incha allah tamit ñu xamale leen ni lii moo fi mujj amee décision bi li yegg mais lu ciy mënti am rek ñu ngi koy topp te incha allah dinañ leen ko taataanal fii ci biir Promédia ak Univers mais comme ni ko defee nii c'est normal parce que àdduna nii la mhm. information day leer ak te sûr mhm. am na ñoo xam ni tey ñi ngi seen kër mhm. fii si Touba waaye ñi ngi doon toog di xaar li nga xamante ne moo di cant bi kon li fi jot am foog ñu leen ko balaa ñoo ñëw moo gën ñu yàq seen passe genre wala dara mhm. mais waxuñu ni cant gi doo am ba tey mhm. déedéet mhm. waaye li fi jot am la ñuy wax ndax mi ngi taw gëmuñu nii ndax dina am wala du am dañuy dute parce que li fi am nii ni instant bi nii kenn mënu ko naataabale ay bâche yuy naaw ay chaise yuy naaw te tey dafa ngelaw taw bu ànd ak ngelaw la waaye lu si mënti am rek ñoom dañ leen jox information yu sûr te wóor fii lay xewee nag ñu ngi fii jannatu encore une fois ñu fàttali leen ko fii si bërëbu ki nga xamante ne moo di Cheikh Béthio mhm. jaamu Serigne Saliou mhm. waaye mbokk yéen yi nga xamante ne yéen a ñu safoo mhm. duñu suivre fii si Univers Info ak bi promédia am mbégte ak contentement yéen a tax ñuy dugg si taw bi di xuus waaye muy naaj dañuy daw muy neex dañuy daw muy nakari dañuy daw ngir yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy sopp lu ñu di ñu topp. à mhm. fii si suñu plateforme yi. Mhm, mhm, Mat ma bàyyi la rek. waaw kon hors de loolu est-ce que duñu doxantu sax jéem a xool fi nga xamante ni moom mooy euh, ci ci ci waañ bi. ndax tamit gis nañ fa ay petits dégâts yu ndaw yoo xamante ni c'est euh, très wan ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy internet yi. waaw comme ni nga ko waxee sànq lii ce n'est rien parce que information la boo xam ne dafa xew fii ci Sénégal juste que lépp loo xamante ni nit ñi ñi ko doon ci li nga xamante ni moom moo nekk actualité màggal gi. ndax tamit euh, ak lu mënti am ñun ñëpp ñaan ñu ko yàlla tey cant gi bu fekkoon sax dañ ko annulé du neex ci ñun ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi mhm. ndax adduna ak bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp tam ñu ngi doon xaar lu ñu mel parce que tey ku ko xam-xam ni ki nga xamante ni moom mooy euh, fans Mohamed Niang ñi ngi doon xaar kii di Mohamed Niang fans ki nga xamante ni moom mooy euh, Tawfekh Mbaye pare fans ki nga xamante ni ñoom ñooy ku ci mel suma kii Papa Gueye mi daal di ak ñeneen ñu ni mel ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir cant gi ñëpp ñëpp seen i ñu ngi leen doon xaar ak lépp mais daal lu ci mën ci am ñun ñi ngi fii ci jannatu gis ngeen ne fii mooy waañ bi ginnaaw bi ñu bernde li nga xamante ni moom mooy petit déj gis ngeen ni instant bi moom xam doy na mais fii sax pour man c'est pas méchant li tax parce que fii boo xoolee lu lu matt lañ doon toggee xanaa kay dégâts bi nga xamante ne ci loolu lañ war a tiit moom mooy électricité bi mooy courant bi ak li nga xamante ne moom mooy ndox mi mais yàlla na ci yàlla sotti ndox bu sedd te aussi yàlla na ci yàlla def sutura mais daal mu nekk loo xamante ni ñu ngi leen koy toppal lépp loo xamante ni incha allah dina fi amee lépp loo xamante ni dina fi tukkee mm-hmm. incha allahu taala bu ñu deewulee dina leen ko jaayanteel ndax ñun amuñu lu dul suñu internet yi mm-hmm. waaw kon bu fekkee dañuy doxantu ci biir ñu xool li nga xamante ni mun nañ ko soulever wala bokk lu ko may ñu tëj après bu ñu fi gisaatee leen loo xamante ni jar na ñu ñu ñu xamle ko incha allah ñu xamle ko. Mm-hmm. comme ni ko waxee Mar parce que du du du du suñu coobare ñu ñëw di leen wax loo xam ne amul. non waaye lu fi am rek lan leen di wax mhm. gis nga photo yi dañuy daanu mhm. baas yenn baas yi ñu ngi daanu genre mhm. comme ni lan la ko waxee rek comme li ngeen gis ne la en face gis ngeen ko mbokk yi yi ñu ngi daanu waaye lépp lu fi mënti am rek dinañ leen ko indil lu wóor te sûr fii si univers info ak bii promédia gis ngeen ko noonu encore une fois ñi ngi jànnatu ñu rappelé leen ko waaye cant gi dana am ak du am loolu nag xamuñu ndax yoruñu organisation c'est ça du sax ñun ñoo mhm. cooy am quoi que ce soit ci luñ ci mën a ñëw. Mhm. du dul lan taataanal leen. Mhm. léegi nag bu ñu leen ko taataanalee. lépp luñ ci jël comme décision allah. fii ak guddi incha allah nañ leen ko xamle. li ñuy def day tax ñenn ñi nga xamante ni ñooy seen biir kër yi ñu rappelé leen. ndax dana am ak du am pour ñu xam li fi jot a xew. pour bu ñuy génn ñu ñu prévoir. bu dee day tawat ñu mën a pare bu dee du tawat ñu a pare. Mhm. pour loolu rek la. Mhm. mais comme ni ñu ko sama waa ji waxee Doudou borom bii promédia ñu lay jaajëfalaat bu baax a baax. gis ngeen nii gis ngeen ni xibaar yi boobu ba tey ñu ngi leen koy toppal. Mhm. waaw suma gars ñi moo kon léegi xam naa dañuy dagg direct bi. léegi dugg am benn xibaar bu ñu jël fee lu ñu fa jëlee incha allah bu ñu ñëwee ñu xamal leen ko. kon ñu ngi leen di jaajëfalaat yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci univers info ak bii promédia dañ leen di wax ni yokk leen seen abonnement yokk leen seen concentrement ci li nga xamante ne moom mooy chaîne bi incha allah lépp loo xamante ni fii la ci Touba présentement ci jannatu lu fi nar a tukkee ak lu fiy tukkee incha allah nañ leen ko xam ne kon ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax te di leen wax ni boo màggal daa ngeen jëf merci beaucoup grand magal de Touba édition 2023 18 safar 1445 di bés bu murit yépp di waat seen chaîne univers info tv fas yéene see ànd ak yéen si ay documentaire ay interview wala bokk ay kuréel xasida rajas maanaam lépp luy wane liggéey ak jàngale lépp sëriñ bu mag bi yéen ñi nga xamante ni bëgg ngeen a seen ay produit mën ngeen ñoo jot au 77 468 54 52 18 safar suñu yitte